ginnaaw suba ba ginnaawaati suba ah euh, euh, euh, ku justice jàpp rek man damay jàpp ne dafa jàpp dangaa def lu jaarul yoon ñoo tax ñu jàpp mhm. bu ñu demee def jugement ñu condamné la tamit awma ci mais c'est-à-dire parce que boo considéré ne droit nga topp pays de droit la ñu nekk te ñi nga nekk ci justice bi wóolu nga leen rek bu boobaa doo juum du dëgg tey ñi fi nekkoon justice bi démb mhm. ñu ci bari ñoo fi nekkaat tey mhm. changé wuñu te ñi doon leen xas na leen justice su président bi fi jógee woon la tey justice boobu moo nekk ñoom seen justice. Mm-hmm. xanaa kon tey ñeneen ñi bu ñu melee ni ñoom. te di topp rek li nga wax en retour dañuy ne justice yéen ñi fi nekk tey comme mm-hmm. autorité ngeen du dëgg. donc dinañ dinañu dinañu xalaat loolu effectivement moo tax ma ne la si jëfin bi la parce que tey. mais ba jaxate dama koy tegee côté parce que euh, si li ñuy wax fi lañ ko toppee ba fu muy yegg mm-hmm. loolu beneen affaire la man duma ma ci dugg détail quoi mais bu ñu ñëwoon tey si par exemple récemment Ahmed Suzanne xaw ma ko dama ko gis nii peut-être bokk nañu émission benn yoon sinon je l'ai jamais connu xaw ma ko personnellement mais li mu wax dëgg la ku ñu taajoon sa kër nga jàkkaarlook sa papa doo ko wax lool nga jàkkaarlook sa yaay doo ko wax lool mais baatu wolof la ku wax lu amul loolu lañ koy doye mais nak dafa rafetul encore une fois suñu institution la motax duma ci jaar bu rafetone dama ci jaar du deug duma ci jaar waye ah ci ci bañi wax ci loolu à côté dafa am kenn ko xamantene c'est le premier sénégalais bo xamantene kérok bi président prêté serment ci suba sa moko ñëk saaga ndey ñepp di wax di téye sen gemmi ba légui dara amul té ñu né fan la bokk ci ñom la bokk foog naa ni leçon bi foofu la waroon commencer mu gën a mm-hmm. bu boobaa xel du tey mm-hmm. ñu demaat tuuti amaat ku defaat li ñu mel mm-hmm. ñoo xamante ñoo gën a garaawle kële ñu jàpp ko ah ñu ne ah ñu ngi dagal luy doon yoon parce que discours bi PM defoon ca euh, euh, te grand théâtre ministre bi woo na ma yónnee ma benn video ne ma kii ci yéen leen bokk encore une fois même bu ko defee mënul ñàkk amaana mën na ko def waaye fofu mom bu ko defé tamit fofu du place ba pour mu waxat ko légui nak pour woné won peut-être ne rupture amna la anyway dans tous les cas waron na mëna ñak mais koku bañ ko jappé tay ñëpp dañu né ah ñu ngi yémalé ñu applaudir deux jours après lu ñu wax dafa am xel problème xel motax ñu libéré loolu la avocat yi wax ki am xel problème xel moy xey suba ba di def directam di wax liko saf di doxi ay soxlaam dul hôpital kenn waxuko ko dof donc bu yoy nonu amé bu boba lañu doon wax nit ñi dañ koy li nga wax nii ci loolu la ñu jëm mm-hmm. dañuy naan kumba am ndey dafa am kumba amul ndey dafa am te bu boobaa xam nga lan la mën a jur li ñu dundoon ci ginnaaw parce que yu mel noonu lañ doon reprocher régime bi fi nekkoon mm-hmm. ba ñoom ñu dem ba ci biir mënatuñu ko muy ñu ñu ñu jug nag di ko jàkkaarloog ñoom mm-hmm. di wane nekki te lootuñ fu ñuy nootee te dëggantaan la Sénégal fii même lu dul Sénégal euh, esclavage dafa jeex traite négrière jeex na fii kenn tollootul fu lay nootee soo ma benn yoon ma noppi aana nga sotti kaasu ndox ma noppi duma la fa xaar nga saw ma du am damay jug seet beneen solution bu ma def man tamit bu ma amul ku ma ko fajal mm-hmm. te yooyu noonu bëggatuñu si yegg aana parce que yooyu noonu yëpp affaire de politique politicienne mm-hmm. entre les politiques ay doomu jàmbur yi nga xam ne man ak comme sama genre bi la ñun tajuñu fenn suñu papa yi amuñu suñu yaay yi ay ci àll ba la ñu jugee ñëw tey nekk Cameroun Town di daan doole amaana pour dundali suñu njaboot nga xam ne bu ñu xëyee dañuy yendu ci naaj bi suba ba ngoon am lu ñu am ñoo fi dee ci mbedd mi. Mhm. ñoo fiy des ñoom lañ fiy tëj ci kaso bi ba léegi am na xale yu nekk prison. Mhm. génn ñu pour lan ci xeexu ñaari politiciens ñu mujjee naan dañoo juboo parce que dafa am waxtaan mujje ci loi d'amnistie. Mhm. au moment boobu noonu xale yi ñii dee nañ seen parents yi dootuñ leen gisati ilaa yow mi diin bala ñu ni fekk ji yooyu moo war a jeex. donc moo tax ma ni la ay xëppa xëbbalaate ay kenn du fi waxee loolu du am liberté d'expression dafa am dañ koy def. waaye liberté d'insulter nag amul fenn kenn du fi jox liberté kenn ngay saaga ku la neex moo tax ma ni la ña doon saaga démb ba tey ñoo ngi continuer ñoom di saaga mhm. léegi nag ñoom su fekkee dañoo bëgg éradiquer lool danañ xam bale bi fu muy commencer waaye ñi bañoon saaga démb man mun naa yëkkati sama loxo ne ci laa bokk te duma ko mës a nangu tey mhm. ku saaga sama président ma jàkkaarloog yow man di wax ak yow nga saaga sama président ma saagal mhm. même bu ma xamul le président de la république c'est mon président je suis waaw àbbiwuma fenn fu ma dëkk bu mooy wax ak yow nga saaga président de la république ma saaga la yow. sa d'accord alors ñi ngi wax loo xamante ne nii xëy na rafetul euh, ci euh, dégg-dégg euh, muy kàddu yoo xamante ne nii dafa newul ñu jël ko war ko mën a jël ci kilifa mais am na ci leneen loo xamante ne nii également c'est à déplorer surtout ci kilifa yi nga xamante ne nii ñoo ñu jiite parce que des fois da ciy gis koo xamante ne nii dafa saaga. Mm-hmm. wala mu wax loo xamante ne nii wax waru ko woon wax. Mm-hmm. wax nga ko tout à l'heure mi ngi doxi ay soxlaam mais

Eh, eh, eh, kuy digle cangaay setal ba pare am na yoo xamante ne ñoom soxlawul sax ñuy wax li dinañ ko def li ku ko def dinañ def lii ni ci say acte rek yi ngay def foofu la ñëpp di jaaree jub par force xam nga tay man mën na wax ni duma leen fekk si si loolu mhm. parce que man duma saaga ba su ma bëgg saaga kilifa man mën na wax loolu yow mën nga ko wax mais keneen mënuma ko mënuma ko assurer ne mom lolu du ko def léegi nag bu ñu demee ba gis ñoom euh, bu ñuy rappelé vingt 2021 ba mille vingt 2024 bi ñu daan génn di révolté wu ci dëkk bi di manifester lan moo ko daan indi dañuy jàpp ne dañoo teg nit luñ ko warul teg. Mm-hmm. justice bi jaarul yoon kumba am ndey amul ndey la ñu gis ne amuñu ku leen ko fajal ñoom ñu génn na dañ koy fajal seen bopp ci mbedd mi moo indi woon yu bari xew ci réew mi léegi bu fekkee loolu dafa ñëw. ñu gis ne am na ku wax lu gën a garaaw cinquante deux mille fois ma ngay doxi soxlaam chaque jour nga affiché ak moom <laughs> mu lay ngeen di photo di vidéo mm-hmm. au moment keneen wax moom tamit ñu jël ko tëj ko ci kaso bi la nga doon wax démb ba di ko xeex moom la kooku tamit war a mën a wax palaasam lay doon moom tam pour mu ñëw mu xeex ko mm-hmm. waaye nag nekkul ne damay puus nit yi ñu dem fay ko déedéet mais dam lay expliquer rek par mm-hmm. rapport ak sa question bi parce que tey jii kooku ba mu defee lool mënoon nañ amoon nañ possibilité comme ñoom ñooy autorité ñu buñ ko tëjul ci kaso bi au moins ñu cadré ko mm-hmm. te kenn buum leen gis ak ñoom te dañu amoon lu tax sax waroon na tax kenn du leen gis ak ñoom mooy lan on se rappelle ancien président Macky Sall premier fois bi mu defee direct xali Khaliphone Sall mm-hmm. Sénégal yëngu na comme comme <coughs> bésu lu ma xamul mm-hmm. parce que lan la ñu né dafa dañ ko gis muy def ak direct di photo wo ka xamné le plus grand insulteur du Sénégal mm-hmm. ñëpp di ko ñaawlu ci ñom lu né wax nañ ko lu nekk wax nañ ko légui moment bob ki nga xamantene mo ñëkk saga man loolu la koy tuddee le premier sénégalais qui a insulté un président nouvellement élu mm-hmm. ñu tok quelque temps après ñu dem à feulé université ñu gis ko ak PM ñuy safonté di mm-hmm. waxtaan bay rétanante ban différence là mais mais nous à l'époque euh, on se souvient que li ñu joxe comme argument moi que ni le président de la république est le président de tous les sénégalais kuy saaga ak yépp donc am na droit euh, affiché wu wala mu photo wu ak. Euh, ñan ñoo joxe woon boobu kii ba argument. ñi ñi nga xamante ni ñoo fi nekkoon à l'époque. Euh, wa kër Macky régime bi fi jógee waaw. waaw régime Macky Sall. Mm-hmm. ñii ban argument lañ joxe. non ñii kay joxewuñu argument. mu ngi noonu. xam nga koku joxe na argument man bokon na ci ñu ñëk wax lool dam ne rafetul ben yoon président ñu gis ko ak ko xamantene saga na fi façon saga bu ñaaw bu nek waye mi ngi melni tay man dama koy jël exemple bi damay bëgg man à chaque fois sumay jël exemple ma jël ko ci sama bop. lool moma gënal ma baña togn kenn tay ñu gis ma ñañ ma ñu ne man damay taxawalu damay taxawalu di jaay sama bop ci mbedd mi nañ ma baal mais suba ñu dem gis ma ma dem tey ci sëriñ bi nga xam ne moom la ñëpp gën a fonk mhm. ma dem sukk ci ronam di ko jébbalu di waxtaan ak moom ñu gis ma may saafanteek moom di mhm. reetaan lan la ñenn ñi di wax da ngay dégg ñu naan la sëriñ bi warul woon dalal kii mhm. kii xale bi moo gën a bon mais est-ce que sëriñ bi loolu moo ko bu fekkee képp ko bon dañ lay beddi kenn dina baax sëriñ bi kiy tox kuy naan kiy jaay kuy def naka sudul noonu lépp lu mën di am njabootam la daf lay xoolee bëtu doomu aadama war naa mën a dugal ci yow bi ngeen toogee wax joo xamante ne bu la fekkoon ngay def leen nii sax soo ko déggee automatiquement mën na laa changer tuuti mm-hmm. boo génnee nga xalaat ko nga changer loolu mooy seen kii te président de la république dañ koy considérer c'est le père de la nation mm-hmm. Diomaye fay tey mooy suñu papa suñu papaay papa suñuy papa ñun jomaay mooy seen mooy seen papa suñu ay <laughs> maam yu góor jomaay mooy seen papa jigéen waxi na parce que c'est le père de la nation mm-hmm. donc bu fekkee ne moom mooy père de la nation ku dof mu ne la tegal ma ko fee dafa dof ku saaga mu ne la tegal ma ko fee dafa dafa saaga ku wax lu bon mu ne la tegal ma ko fee kañ lay dajale njabootam ñu mm-hmm. jub li mu mën mooy jéem a rassembler njaboot bi mu def ci ñoom lu baax mhm. loolu nag dam ko wax loolu mooy li war a nekk mhm. waaye tey boo gisee ñoom ñu am mieux du ñu am mieux placé pour def lool mhm. c'est parce que fa ñu jaar yëpp ak la ñu wax yëpp moo ko andi tey man tey su ma neexee ma wax lool mais tey PM su la ko waxee yow di nga nekk barki démb bi ñu doon wax fii ancien régime bi foo nekkoon c'est ça la réalité moo tax ma ni la à chaque fois ku ci nekk li ngay def bàyyi ci xel pour suba buñ la koy fay comme ni ñuy wax bu mu la métti ça veut pas dire nag danoo war a fayantu parce que Sénégal mm. ñun ñoo ko bokk mm. li koy taaral di ko rafetal te teg ñëpp ci jàmm ci loolu la ñu war a dox mais pas fayantoo pas rayante pas xuloo pas xeex gis nga bu ñu toll woon ci jamono fayantoo wala rayante wala xuloo waxee xeex loi amnistie du woon duñ ko doon teg mm-hmm. te tey ñi nekkoon ci kaso bi amaana ñu ngi fa wala Sénégal demee na neneen te bu boobaa du avantage u kenn. donc bu ñu demee ba mën a génnee leen am ñenn ñoo xam ne ñoo sacrifice waaw sacrifice laa koy tuddee ñi ñàkk seen doom yi ñoom ñooy sacrifice yi. parce que tey ñoo ñàkk à la fin ñaar ñi seekoon xeex bi ku nekk ma ngay doxi soxlaa ba ñenn ñi génn nekk ci. Euh, jiite réew mi ñeneen ñi ñoom ña ngay doxi soxlaam jiite ji leneen lu dul réew mi donc kan moo ñàkk ñi deewoon donc lépp lu ñuy def nañ ko bàyyi xel actes yi ñuy posé ñu bàyyi si xel ñoom bu ñu bëggee foye encore une fois les politique ñun la population nañ am suñu fulla suñu fayda ak suñu mat ba kenn duñu foyee ànd. ay ca mi ngi noonu am na solo ñu jaajëfal la bu baax a baax faatim Ndiaye eh, di eh, wax ni eh, loolu la ñu leen indi loon tey waxtaanee nag décision wala bokk kàddu yi nga xamante ne ni le premier ministre Ousmane Sonko daal dina koy yëkkati di wax ni toléré wala bokk mayatuñu ak ko mën di doon nga toog ci réseaux sociaux yi di eh, jël ay eh, kàddu yoo xam ne amul ay teggin eh, di ko teg ci ndoddu kenn mu ngi noonu ñu leen di gërëm bu baax a baax ci topp gi nga xamante ne nii yéen a ngi koy topp programme yu Diaspora News TV Fatim jaajëfal la bu baax a baax bàyyi